قد سرت للمقدارك جاري rek kontaan nga ci bis bi organisation bi jaar na yoon te wax dëgg yàlla daal lépp daal jàppandi na daal kontaan nañ njaajo santaat Serigne santaat Serigne Touba wër waaw santaat Serigne Touba wër lii moom mbégum murid yëpp la nekk rek soxal seet na guy waaw di wax ne jërëjëf Serigne Touba lii moom kenn nal na Serigne Touba ba saa su ne jamono bu ne rek. Serigne Touba amin waaw loolu de dëgg la sa waay waaw dëgg la wax dëgg la jërëjëf Serigne Touba di wane ne yoonu Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am waaw Serigne Touba moo fi nekk tey moo fi nekk suba moo fi nekk waaw waaw borom jamono di borom lépp daal lépp daal mooy loolu ci barke Serigne Saliou jaajëf waay. seen ni ñu ko waxee woon daaw rek mu mel ni day day ji lii day firndeel liggéey seen tubaab bi ak wax jëm bi ndox na ñu xaati bu nasara turra fi addihim ni maaliki mun dara seen Yankuba xam naa kon bismillah waaw baax ñoo ngi leen di siyaare baax di siyaare sëñ Cheikh Mbacke liggéey bi euh, mu sëñ Abdou Assis di siyaare jëriñ si Mor Tall Sall ak ñëpp rek bàyyi ñu kenn di siyaare waa Touba Argentine TV ak Brésil TV yëpp ci liggéey bi rafet bi nga xam ne ñoo ngi fekk si ko tey lii ndamul lislaam rek ngir sëñ Touba moom suñu borom da ko fay fay gi moo tax ni ko waxee léegi ci bayit bi rek foo dem ci àdduna bi mu ne ma nga fa yen doo ko ba di jàng alxuraan ak rek di di wane di wane taarub liggéey sëñ Touba ndax moom liggéey na ci àdduna loo xam ne ku ko xam rek bëgg ko lii nag firnde la ci firnde la ci lii taalibe yi dundal ci bitim réew mu lu rafet loo xam ne image yu rafet la yoo xam ne dana tax képp ku xëy ci mbirum sëriñ bi rek mën tay jël loo doy sëñ waaw loolu daal mooy yoonu kàddu yi ñu doon sànni dem mbégte bu baax rek ci mbokk taalibe yi taxawaay bi ak pësteef bi ndax ba ñu xëyee lañ commencé alxuraan bi jàng nañ ci ay kaamil yu bari ba ñu jur ci subaar ba ñu jógee nekk ci xasida yi. maaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mbokki jur yi ak mbokki waa. arsantin yëpp ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen siyaar bu baax a baax di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax ci bis bi nga xam ne wax dëgg yàlla moom lañ amal nii muy dox bi ñoo ngi ci sant Serigne Touba bu baax a baax di wane suñu mbégte ak suñu kontaante di leen jaajëfal baax yéen ci taxawaay bi di rafetlu seen liggéey bu baax a baax di wax nag bi bii bis bii nag bisab Serigne Touba la Serigne tubaa bég la ci bu baax a baax ndax xaside yi dañoo amul lenn lu moom Serigne Touba fonk lool ndax ba mu ne kiraamati xattu yeddi yi ci nga xam ne xaside yi maanaam mooy lépp moo tax dañ ci santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax di féete suñu mbégte dox bii ñu def ko dox jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa ak bégee ko kon daal bégg nañ baax a baax sëñ Xayo ñoo ngi leen bégal bu baax wér cant xamante ni bii mën naa amub tàmbali waaye mënta amub ndax li ko waral ni ma koy faral di wax rek daf ñoo joxoñ nañu lii moo ko may di ko boole ci kuréel bi yàlla muy xasidaam yi ñu ci Sénégal ñëw fii ay taalibe yaakaar Sëñ Tuubaa gëm ko nekk ci loolu bi ci dox ndax tey jii mooy ñetteel at moo xamante ni bii ñu ngi koy def ak ñeenteel at moo xamante ni at mu nekk dëkk bu nekk ba ko aaye tey nag ñu ñëw fii ci La Plata waaye day firndeel rek liggéey bi nga xamante ni moom la Sëriñ Tuubaa liggéey ca coono bi nga xamante ni moom la ko suñu borom tegoon fay gaa ngi nii nag ndax fépp foo mën dem ci àdduna bi liggéey bi Sëriñ Tuubaa nga fa foo mën dem ci àdduna bi taalibe Sëriñ Tuubaa yaa nga te dara ñur leen rek lu liggéey Sëñ Tuubaa kon li waxoon ne dammat leen ak xalaamu lil jundil kiram wa xaadilaaw bi xayril maraam waaw la ma boole ci kuréel yàlla ba mooy sama xalima yi muy tax ñu war a fonk xasida yi war koo waggar li mu waxoon ni sama xalima yi saa su ma jógee ngir bind rek day mu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag noonu lay jooloo iblis wax ne addaxakar rabbiya rasulallahi bi xattiyal moos yaqdu wallahi muy loo xamante ni bii bu ñu ko xamul dëgg dëgg dëgg danañ ko fonk ndax lépp loo xam te ne day muuñ la ñu def sallallahu di ko bégloo ñun yaakaar naa war nañ caa mën a dox te ki nga xamante ni moo bind loolu bay muuñ la ñu def sallallahu mooy sunu tey di sunu suba di sunu ëllëg mooy Cheikhul Khadim kon war nañoo gën a jàngat bu baax a baax a baax ak taalibe ak pas-pas ak yëg goo xam ne yëg nañ si Serigne Touba ab taalibe nag na ma koy faral di waxee du ndum mu rëy rek waaye da ngay dox ñu xool xam ne yow mii ab murid saadix loolu moo am solo waaye du caagi nag ni bu mbooloo dajee rek nga wane pas-pas ak passeef Sëñ Tuubaa dafa ñoo jàngal lu bare bare bi ci jiitu mooy ay teggin akub yar ak xam te boo xamul nga nangoo laaj te nangoo gëstu loolu ab murid war a def ab murid wërta réer ci dara lépp loo xamante ni bii lu lëndam la ci moom rek war na ko mën laaj ngir xam ko ndax Sëñ Tuubaa bind na lépp bàyyil nu lépp defal nu lépp li muy wax ne ne dig na nu tere nu tëkk nu dégg nu mbégum ëllëg kon nag nañ xool ba xam lim ñu dig mooy lan lim ñu tere mooy lan lam ñu tëkkoo mooy lan ndax lépp jeex na kon ñu ngi sant bu baax te gërëm bu baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf